de temps est-ce que tey la fédération euh, tey moom ngi def les démarches qu'il faut pour que ñu bañatee dugg ci durée yàgg yi nii parce que aussi on peut avoir des athlètes yoo xam ne kenn xamul ci conditions yi ñuy demee benn chaque fois dañ koy kaas bu ñu yeggee foofu noonu aussi kenn du xam après ñu def de de telles pour lan pour le pays pour l'amour bi nga xam moom la ñu am pour ce drapeau là et puis arrivé tey à d'une compétition Euh, duñu la jox loo xam ne tey jii euh, maanaam euh, yegg na wala bo parce que mënu mënuñ ko sax nat parce que tey une médaille d'or pour un pays ñu yóbbu raaya bi foofu noonu tey mënuñu la fay mm-hmm. parce que je pense que tey jii waxu dix mille francs yi noonu ngay wax sax pour man tey défaite la ci état bu Sénégal mu koy yëkkati tey pour un athlète boo xam ne tey dix mille francs mënuloo ko ndekkee tey ci réewu jàmbur <laughs> waxuma la fii nii donc tey vous au niveau de la fédération tey yan démarche ngeen nekk tey di mettre en place pour que l' au moins changer tey li nga xam moom moo nekk tey nekkinu athlètes yooyu noonu parce que aussi li ñu faral di bëgg gis tan yi ni moom moo nekk tey balaa ñu laa honoré ma say mbokk ñàkk la. merci Grégoire que def nga ci analyse bu baax poser aussi question yoo xam ne yu pertinente la te mooy amal solo mooy amal njariñ réew mi mooy amal njariñ sportif yi mooy amal njariñ aussi état du Sénégal parce que état du Sénégal aussi dañ leen a fal. Mhm. askan wi moo leen fal. te askanu Sénégal dafa am particularité mooy 70 pour cent de jeunes la am. Mhm. et quand on parle de sport on parle de jeunes. sport xale yi koy def te xale yi ñoo fa ñu fi nekk tey maintenant il ne faudrait pas qu'il tombe dans le creux de la vague xam nga loolu mooy lan mooy lañ fi doon kaas. Mhm. ci ñi fi nekkoon ba jëlee leen fi ñoom bu ñëwee waruñu ko def dañ ko war a saafara dañ ko war a saafara je peux comprendre. on est dans le délai des 100 jours on nangam ñoo ngi ci refonte du code du sport c'est le moment de prendre en compte cet arrêté la nga xam ne c'est un arrêté qui est ki qui n'est plus adapté au contexte actuel nga jël ko changer ko on ne parle pas d'équité d'égalité du moins mais il faut une certaine équité mënuñ jël football tollale ko kii football c'est une industrie du sport ça mhm. génère beaucoup de waxuñu ñu tolloo la leen mais il faut que cette équité et l'équité comme ni nga ko waxee sànq ku def lu rëy am lu rëy. jugeons les gens sur les résultats. jugeons les gens sur les résultats. quand tu prends en question depuis 60 ba léegi amul ku ko fi ëpp résultat. amul ku ko fi ëpp résultat demal ANPS euh, nga jël la Lion d'or athlétisme yi jël na ko 10 fois. amul beneen sport bu ko fi jël. 10 mhm. mhm. fois amul beneen sport bi ko fi jël donc sur le plan des résultats. y' a y' a mhm. maintenant lu ñuy wax mooy. ñoo ngi ci laa refonte des textes di def la code de sport ci est en cours qui n'est pas encore finalisé. Mhm. nañu ba arrêté bii nii nañ ko jëlaale en compte wala ñu indi des facteurs yoo xam ne xale yi dootuñu jooy lii. ñëpp la beneen bi ci topp mooy yaa ngi ko wax léegi. Mhm. da ngay dem ba pare sport nga toog fii mais ñaata sport. xam ngay romb fii non seulement doo leen xàmmee wala da nga leen sax yërëm. c'est pas bien. il faut que les gens pensent à la reconversion des sportifs. surtout ñi nga xam ne dañoo rëkkati yëkkati raay Sénégal wala ñu nekk ay internationaux. Sénégal daf leen war a bàyyi xel. li nga wax rek. bala cee fàttaliku kenn rek dafa dee. mais ñaata ñoo bàyyi sport nga xam ne ay internationaux lañ tey ñeneen ñi ngi sont dans la diaspora ñeneen ñi ñibbisi nañ ñi ngi fi. xoolal kenn xamu leen kenn déggu leen. te pourtant ñi ngi dellu ci seen discipline di yëngatu bu baax ñenn ñi nekk ci yeneen dëkk yi France Italie ak feneen. di jàppaat ci seen disipline bi leen taxaat kii nii mais xoolal ba léegi amut benn benn benn programme bu ñu teg pour ces anciens sportifs là. Mhm. et c'est pas normal. Mhm. d'accord mais président euh, ba tey euh, mais bi ngeen jógee fii est-ce que ñu ngi wax ne ñi nga xamante ne moo di autorité am na yenn yenn fédéraux yoo xamante ne jot nañu wax la ñoom wax ak ñoom pour dalal seen xel loolu est-ce que mën nga confirmer ou bien. dama lay tontu. en même temps ci ñaari question yi lan la fédération def parce que Grégoire posé na ko. fédération xaarul athlètes yi am médaille. muy def dara muy def dara noonu non gis nga Louis François bi mu qualifié euh, deux mille vingt trois def treize dix huit qualifié directement Jeux olympiques. Mm-hmm. ci la fédération def programme ak son entraîneur programme de préparation à hauteur de vingt trois millions. ba fi may wax ak yow nii kenn financé wu. et on est à deux semaines des Jeux olympiques. Hmm, xam nga finalement da naan yow finalement doo xam sax da naan est-ce que sport bi sax cëral nañ ko. mais est demu leen ci sutura hmm? demu leen ci sutura. demuñu ci ci sutura. waaw euh, c'est-à-dire. maanaam est-ce que ñoom matale nañ lépp. puisqu'on parle d'un programme assez caduc dégg naa ko ci ministère mooy dafa bëgg tey euh, delloowaat ko bu ko defee ñu xaymawaat li nga xam ne. tey xam nga xam nga xam nga tey athlète buy def programme. ci moment bi mu nekk rek la ko mën a def mooy qualifié na Jeux olympiques war naa dem États-Unis pour am fa benn compétition war naa dem France war naa am benn stage un mois ci calendrier boobu rek la ko mën a calé déposé ko bu ñu ko financé woon heure ba ñu ko waroon a financé kon booy bi def na programme am yépp am préparation bu baax. Mhm. nga xam ne buy dem Jeux olympiques day dem ak xel mu dal. Mhm. parce il sera xam nga en possession de toutes ses capacités. mais ñi koy traîner mu jël un mois ñi traîner trois mois traîner six mois traîner ba mu traîner huit mois. ñëw naan defaraatal programme bi. même programme boobu bu ñu ko ko financé tey ce ne sera pour la préparation c'est peut-être pour la préparation mentale. fexe ba athlète bi xam ne dëkkam sas nañ ko dëkkam jàppale nañ ko. bu demee di jongante mu def ba def lu mu mënut il l'a dit nee na ñu jox ko ñu ñàkk coo jox il va défendre les du Sénégal ba baa muy dee. xam nga loolu dafa daw yaram. Mhm. ci koo xam ne tey dëkk yi ñu ngi lay xëccoo pour jël la. te loolu est-ce que nekkul da ko démoraliser parce que dig boobu tey bu mu dawee 13 18 boobu tey dawatul lu ni mel. non le connaissant c'est un sportif c'est un grand tey dafa dafay dafay lii du ko décourager au contraire da koy motiver même su nekkee du yomb da koy motiver parce que c'est un grand sportif xam na li mu bëgg xam na fi mu jëm que nit ñi def li ñu war a def wala defuñu li ñu war a def. Mhm. du ko du ko démoraliser. Mhm. non non non il est il est droit dans ses bottes. Mhm. parce que mais soxna Khadija mbaa nekk yaa ngi dégg jàngoro yi sa <laughs> li nga xamante ne moom la baara di souligné mbaa nekkul tamit moo dal seen seen discipline bi yéen tamit mbaa dalul leen. waaw Euh, ñun parce que dañ si gën dañ si gën a yaatal après bu paree xabaar d' accord incha allah mais bon ça on se débrouille. waaw ah, yaa yaa ngi débrouillé quoi. voilà léegi président yaa wax sànq dans dans presque deux semaines dañuy amal li nga xamante moo di JO yi. parce que mën nañu jàppale majeure ñi nga xamante moo di les du Sénégal actuellement ñu ngi fële nga xamante moo di ca Paris. Mhm. waaw est ce ngi jàmm nga nga defal li nga xamante moo di état bi jamono ji laata euh, euh, affaire di tàmbali boo koy préparé pendant quatre ans. Hmm. nga dem ba mu des deux semaines pratiquement ci dernier réglage yi rek ngay nekk. Hmm. dernier réglage yi bon les trois gosses qui se sont qualifiés notamment Cheikh Tidiane Diouf Salih Sarr ak Louis François Mendy c' est des donc yoo xam ne pratiquement seen entraînement yu ëpp France lañ koy defee. Hmm. donc dañuy dem ak ñëw di def ay euh, meeting di daw euh, un peu partout dans le monde donc euh, tàmm nañ compétition yu mel yu mel nii. maintenant. ñoom ñi nga préparé psychologiquement avec leur entraîneur di préparer continuer aussi seeni entraînement parce que diggante bi beneen compétition xaju fi maintenant li ci des rek mooy que état du Sénégal tey daf leen waroon recevoir avant ñuy def daf leen war a recevoir avant ñuy def jox leen médaille jox leen drapeau bi drapeau plutôt. yaa ngi dégg def d'une pierre deux coups comme bi ñu jógee championnat d'Afrique ba léegi recevoir uñu leen. te mm-hmm. ce qui était c'était bi ñu jógee championnat d'Afrique ñu recevoir leen parce que ku def lu rëy. ñibbisi. da ko war a recevoir même boo ko joxul dara. Mhm. même boo ko joxul dara moo tax man may alerter ne leen le ministre des sports en question il ne faut pas qu'il tombe dans le revers de leur de de, de leur prédécesseur. Mhm. parce que loolu la sportif yi doon kaas. te mi ngi commencé di am recevoir des athlètes yuy soog a ñëw ou des sportifs qui ont compéti sur le plan international ñibbisi. Mhm. même boo ko joxul dara ça ne coûte rien du tout pourquoi on le fait pas pourquoi ça traîne on n'a pas compris. vous vous sentez minimisé quelque part. oui bon xam nga ah bon d'une certaine façon pas ñun en tant que tel parce que euh, ne serait-ce un an yi mujj on a connu cinq ministres. ok bi mhm. ba demee ba léegi. on a connu cinq ministres. donc ñun lu ñuy démoraliser du lii. ñi mhm. ñuy ay sportif lañu du ñu décourager. Mhm. parce que. et dans tout ça le CNOS. bon xam nga le konos moom rôle am mi ngi koy def mooy su gisee athlète boo xam ne kii il est prometteur. mu accompagner ko. Louis François Mendy CNOS mi ngi koy accompagner. Sali Sarr CNOS mi ngi koy accompagner ainsi de suite. Mm-hmm. Cheikh Tidiane Diouf. donc côté boobu ñu ngi koy accompagner donte li ñuy def mën nañ ko gën a dolli parce que tey. ils ont accompagné trois athlètes ñoom ñu dem nekk champion d'Afrique qualifié Jeux olympiques mhm. bu ñu accompagné woon dix athlètes aussi ce sera le même topo mhm. parce que les capacités sont là les possibilités sont là les gosses sont là mhm. xëy na li dooleem attan loolu la def parce que aussi géré benn discipline kese cinquante cinq fédération lay gérer maintenant fi muy sooxee du ci côté CONOS CONOS du yëkkati xaalis di la jox parce que dafa xam allatu nekkatul allatu fédération wala allatu club wala allatu kii allatu état du Sénégal lay toll. parce que bu ñu demee tey Jeux olympiques mais bu ñuy wax luy François Mendy kenn du wax club kenn du wax fédération. sénégalais la ñuy wax. Mhm. te loolu rek parce que la ñuy wax dafa am des sports de représentation. Jeux olympiques bu fa Sénégal teewul Jeux africains bu fa Sénégal teewul championnat d' Afrique bu fa du dëkk boo xam ne am na gëdd ci sport. Mhm. te nag sport li mu mën ci fésal réew. Mhm. li mu mën ci dooleel réew mhm. am na réew yoo xam ne sport rek moo tax ñu xam leen loolu dirigeant bu ko xamul ah c'est vrai parce que en 2002 wax dëgg yàlla Sénégal siiw na si àdduna mais bien sûr mhm. Sénégal bu ñu ko xamee en 2002 mhm. football football moo tax Jamaïque bu ñu ko xamee athlétisme moo tax Kenya bu ñu ko xamee mille cinq cent dix mille moo tax mais parmi parmi ñi nga xamante ñoo qualifié JO yi si kan ngeen gën a am yaakaar ne a a décrocher li nga xamante ne moo di parmi ces trois. waaw xam nga nag yaa ngi dugg sensible xam nga médaille moom médaille Jeux olympiques. Ah, dama lay tontu xam nga médaille Jeux olympiques du yëfi gone. Ah, ah, non suñu objectif la du bu ñuy am objectif. mais dañuy on vise haut. Mm-hmm. lu ñu mën a am jël. Mm-hmm. mais il faut savoir raison garder. Mm-hmm. booy yi c'est leur première qualification. Jeux olympiques nee naa la jox naa la histoire sax. boo xoolee dem jàng quoi. alors jàng dañuy dem pour compétir dañuy dem di def li ñu yëpp dañuy wax rek soit on gagne soit on apprend. Mhm. soit on gagne soit on apprend mais engagement détermination la ñuy demee dañuy dem pour am médaille mais comme je te dis il faut savoir raison garder xam nañ fi ñu toll xam nañ li ñu mën et puis l'histoire a montré que Jeux olympiques ñi koy jël ñëpp boo xoolee quatre-vingt wala quatre-vingt-dix pour cent yi daw nañ ko deuxième fois finaliste soit am médaille wala troisième fois. président ko ñu wax da ngeen dem pour participer déjà le fait de participer aux Jeux Olympiques n'est pas donné. la quoi. le fait de participer aux Jeux Olympiques. n'est pas donné loolu rek c'est une victoire déjà. maintenant le fait de gagner une médaille c'est une autre paire de manches. c'est bu ngeen di suivre Jeux Olympiques. di ngeen ko xam. mais nag cela ne veut pas dire pour autant que ne dañuy dem pour être des figurants de. non non non ils ont leur mot à dire. nag kenn du joxe loo loo loo loo loo mënul Léo François. bi mooy qu'il sera finaliste. te final final moom bu ko bu ñu ko xasee barang 110 mètres et eh yow gis nga ko ni muy dawee dafa gaaw. trop 13 secondes taf taf lu ne mën naa mën na faa xew. Mhm. lu ne mën na faa xew. Mhm. parce que athlète bi ñu yaakaar nii mën naa def faux départ. Mhm. keneen ki mën naa nelaw ci bloc yi. lu nekk mën naa xew. maintenant on croise les doigts et on espère que peut-être dinañ fa am benn médaille mais suñ ko amut aussi. cela ne veut pas dire que soo demee l'essentiel ñu def jom en bon sénégalais def fulla joxe li ñu am lépp ba nga xam ne foo toll ci Sénégal da ngay séen ne kii def na li man mën yëpp. mais est jox nañ leen lépp. waaw joxuñu leen lépp tey préparation bi si war amul moo tax lii François Mendy dafa dafa nekk sénégalais rek nekk nationaliste bëgg Sénégal mais mais kenn kenn kenn kenn mënu ko imposer dara kenn mënu ko imposer dara parce que préparation bi si war defu ko dugal na bi depuis un an ba léegi kenn financé wu ko. il se prépare seul il se prépare seul avec son entraîneur mhm. avec ses moyens parce que meeting yi muy def di gagné fii ak mbokkam yi koy dimbale mhm. ak CNOS ak fédération mhm. loolu lay dundee mais loolu loolu demul Jeux olympiques boo xoolee ñi muy jomante nga xam ne ñoom ñooy taxawandoo ci ligne bi depuis un an depuis un an ñi ngi préparé wu seen état jàppale leen gis nga Côte d'Ivoire li ñu génnee ci xaalis pour ces pour ces pour ces 700 pour ces qualifiés athlète bu ne soixante dix millions. nga war a dem nag war a jongante ñooñu état du Sénégal jox la dërëm. c'est c'est c'est aberrant. kooku kenn mënu ko imposer dara. Mm-hmm. mais fi ñu amee espoir mooy ay sénégalais lañ. Mm-hmm. te dañoo bëgg Sénégal. Mm-hmm. te li ñuy def xam nañ ko gëm nañ ko. mais que jotul aussi dans ces conditions ngeen jël seen athlète ne leen toog leen parce que aussi. moo leen di di xam ne seen bopp xam nga tamit boo hmm? bëggee. athlète bi moom bëgg bëgg honorer Sénégal dañu xëcc ci poosam. di ah. génn ay propre moyens pour aller honorer ah. Sénégal léegi ñëwaat kenn du ko faale. man chance la am. ñaareel bi moom mooy tey quand d'autres nations jël ay ay ay discipline ci mel ni athlétisme wala tey euh, làmb dem jiital ko def ci les moyens ñooñ bu ñu ñëwaatee loolu pour man c'est un sacrifice boo xam ne état daf ko war a def alors tey à ce niveau là mhm. chaque fois on prend les mêmes on recommence noonu la ñuy demee dañuy dem ñëwaat kaas bu du ëllëgee ñu ne bu buy ñëwaatee pare dañuy demaat ñëw coow li amaat est-ce que jotul tamit aussi ngeen montré que ne yéen tamit da ngeen di investir pour seen bopp jot na ñoom ni ñuy ni ñu leen di rek rek laajee tey ji ay ay kii nii performance mhm. ak résultat yéen ngeen laajee noonu tey ñu def les moyens qu'il faut pour vous mettre dans de bonnes conditions aussi parce que je pense que aussi mhm. quand on compétit pour une nation on pas n'importe qui mhm. léegi euh, dégg naa li nga wax mais ba léegi dañoo desee yaakaar parce que avec ce nouveau régime là. Kaaru tasati. am nañ yaakaar non yaakaaruma ko yaakaaruma ko c'est là ça c'est mon avis. Mm-hmm. yaakaaruma ko peut-être ñu ngi soog a egsi on peut leur accorder un peu de crédit mais li ci kanam raw li bët su changé ñëpp koy xam dinañ ko constaté ndoo ñëpp koy déggandoo parce que ñun moom euh, wax rek lañ man dañuy wax mais état mënuñu ma ñaar loxoom. mais nag danañ ko defal ay proposition danañ ko won ay piste de solution danañ ko won fan la problème bi nekk. Mm-hmm. su amee volonté. dina ko changer donc on lui accorde un crédit mais nag il faut ñu alerter parce que euh, ni fi ñu ko war a defee def nañ ko su ñu waree bind mais ministère dañuy bind. su ñu waree avertir ñu avertir mais aussi su ñu waree wax pour que nit ñi dégg ko l'opinion publique dégg ko aussi dañuy wax. donc côté boobu laa ne la ñun am nañ ci yaakaar moo tax qualifié nañ du ñu toog dañuy dem. parce que ay sénégalais lañ te Sénégal la ñuy représenté. te Sénégal du gouvernement yi rek. gouvernants yi pourcentage bi ñu ciy occupé tuuti la. boo xoolee le nombre de ministres yi fi am ak le nombre de députés ak ñooñu noonu bëriwuñu. matuñu sax 10 pour cent population sénégalaise. alors que li ñuy dem di défendre yi c' pour le Sénégal. ce n' pas pour le gouvernement ce n' pas pour l' assemblée nationale. moo tax dañuy dem. te danañ défendre les couleurs du Sénégal. boo yi nag noonu lañ ko comprendre te sentiment boobu la am. ku leen ndax xëy na ñi nga xamante ne moo di autorité sénégalais yi dégg nañ ñi nga xamante ne moo di cri de cœur bi nga xamante ne kii di président Bara Thiam def na ko léegi nag Grégoire ñu dem ci li nga xamante mooy deuxième point bi jëm ci wàllum li nga xamante moo jëm ci wàllum course hippique tey dañu amal son xarija li nga xamante moo di course jëm ci mooy drapeau maanaam drapeau trophée nga xamante ne moo di le président Ousmane Sonko yéen def yéen di ngeen nekk équipe bu bees bu ñëw fi nga xamante ne moo di jël li nga xamante moo di CNG bi parce que juróom benn at li nga xamante ne moo di drapeau chef de l'État amul ngeen ñëw ngeen bëgg fësalaat est-ce que mën nga expliquer tey li nga xamante ne moo di euh, euh, euh, course bi amoon tey fële ci Thiès wax ñu d'abord bu fa demee. Babacar donc tey la nekkoon grand prix kii di premier ministre. Mhm. Ousmane Sonko. nekk ci grand prix institutionnel yi nga xamante ni CNG de course hippique da koy faral di ko tëgg mu nekk course faaram yi nga xam ne moom lay am ci saison bi mhm. notamment le grand prix de l'Assemblée nationale le grand prix du premier ministre le grand prix du président la République voilà donc tey c'était à Thiès fa laa jógee nii ñëw. Mhm. donc euh, voilà on a eu 19 partants groupe 3 moo ko doon daw. Mhm. mais gis nañu li nga xamante ne moo di euh, course hippique euh, li nga xamante ne moo di drapeau chef de l'État gis na am parce que depuis 6 ans amul yéen a ngi ko fas yéene indilaat wala da ngeen am da ngeen am ay ay ay sumburloo ñi nga xamante ne ñoo jiitu réew mi war ngeen bëgg indilaat wala comment nu mu fa demee noonu. si pourtant mi ngi am euh, ren mooy nekk 59 mhm. benn yoon. donc euh, ren peut-être euh, li ñuy wax mooy ndax dina am wala du am ak euh, nouveau gouvernement bi et tout mais c'est bi pour la semaine prochaine incha allah le 14. voilà mm-hmm. mm-hmm. à votre niveau quelles les démarches yi nga xam ne yéen koy mettre en place parce que aussi course hippique quelque part du ma xam mais dañ ko xaw a ñàkkal fayda quoi. Mm-hmm. pourtant c'est un sport boo xam ne tey ça rapporte beaucoup mais aussi c'est assez intéressant puisque. tey bokk na ci li nga xam ne tey on a on a des vedettes au niveau international et tout mm-hmm. mais fii au Sénégal tey on n'en entend pas parler wala boog dañ yaakaar ne dafa am ñoo xam ne ñoom ñoom ñoo ko moom voilà donc euh, tey rek justement euh, ministre des sports maa ngi ko fa bàyyi mm-hmm. donc le président Ousmane Sonko n'a pas pu venir donc il a dépêché le ministre des sports madame euh, Khady Diène Gaye mm-hmm. donc elle était là-bas et du haut de la tribune je l'ai regardée xam naa ne li mu seetaan captivé na ko voilà wax nañ ko suñu mbëbët ak yooyu yëpp donc euh, voilà neen dañ ci taxaw bu baax a baax donc euh, conseil dama seen mbëbët mbëbëtu li nga xamante ne mooy course hippique CNG yi voilà ñun suñu problème présentement c'est euh, problème boo xam ne c'est côté infrastructure la mhm. voilà on a besoin d'un hippodrome national par exemple on n'en a toujours pas benn hippodrome la ñuy dawalee mooy hippodrome bu Thiès bi et vraiment c'est pas nekkul hippodrome boo xamante ne ça répond aux normes internationales mhm. on a aussi besoin de pistes de galop parce que xam nañ ne que secteurs yi fas yi nekk yëpp en général. Mhm. kër yi dañuy dem ba dañuy nangu piste de galop yooyu noonu te fas yi foofu la ñuy entraîner. Mhm. voilà mais ba gis nga doléance bi ngeen wax nii presque ñu fi nekkoon jamono Ablaye Wade ci Macky Sall ba ci tey ki nga xamante moo di euh, président Bassirou Diomaye même doléance ñu fi nekkaat mais jusqu'à présent pour réalisation est-ce que am ngeen si yaakaar. si si am naa ci yaakaar bu baax a baax parce que ministre bi ma gis tey était très courtoise très dévouée. Mm-hmm. Euh, lors de du grand prix de de l'élevage on naa eu la présence tamit du ministre de l'élevage mm-hmm. qui était là-bas euh, le docteur Mabouba Diagne mm-hmm. donc euh, laaj nañu suñu dix points yi nga xamante ne ni moo ñu gën a soxal et que voilà loo xamante ne nii bu taxawee dinañu mën a dim gën a dimbali ci li nga xamante ne ni mooy course hippique te euh, nee na dina ci taxaw bu baax a seen mission bokk na pour sénégalais gën a maanaam euh, euh, di di gën a xam li nga xamante moo di course hippique que gars yi pour ñu est-ce sax sénégalais yu bari euh, miin nañ ñi nga xamante moo di course bi fii ci Sénégal parce que buñ suñ koy dégg wax pas après journalistes yi mais sénégalais yi miin li nga xamante ne moo di course yéen lan ban démarche nga war a def pour maanaam gën a xamlante ak Sénégal li nga xamante moo di course bi dëgg la Babacar donc boo xoolee sport hippique boo xoolee en Europe mooy deuxième industrie bi gën a am doole mm. après industrie automobile te benn fas bu nekk dangay xool euh, lu mat cinq personnes wala plus da koy wër. Mhm. parce que jockey bi euh, entraîneur bi ki nga xamante ne mooy def massage yi soins yi et tout. donc euh, c' est toute une organisation derrière quoi mhm. nekk na loo xamante ne ni tamit dafay fédérer emploi bu bari bari mhm. donc. Euh, voilà donc course hippique euh, sport la boo xamante ne sénégalais yi xamuñu ko tellement. Mm-hmm. des fois sax des gens se demandent ndax dina am. am na ñoo xam ne ah dañ la naan su ma ko xamoon damay ñëw. Mm-hmm. donc euh, mais sport la boo xamante ne mi ngi fii et nit ñi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. pour yéen lan mooy seen tendon d'Achille pour que tey lii lii tey euh, kenn xamul nu mu demee pour que aussi est-ce que pour ngeen mën a nit ñi fexe ba dégg leen au niveau national compétition ñu gën ko multiplier yaa ngi c'est une chose assez importante qu'on veut tey euh, won Sénégalais une certaine discipline boo xam ne tey mu ngi fi c'est assez intéressant ce que vous faites mais pour dégg-dégg bi gën a am tey ces compétitions est que jotul tam ngeen ngeen ngeen ngeen jël ko fësal ko bu baax a wax mais aussi lan moo leen bloqué ba tey Sénégalais mënuñu xam tey li nga moom mooy les courses bi voilà donc euh, ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax donc Sénégalais en général boo xoolee lim lay wax mooy football bi lañ gën a ràññee donc sport équestre en général sport sport hippique course hippique en général comme mala la donc en général ñi ko xamul tellement dañ koy dañ koy daw du ñu ko approché tellement mais euh, nekk na loo xamante ne nii vraiment euh, voilà day générer liggéey bu bari quoi voilà. mais yow yow yow en tant que jigéen yow la moo la boole li nga xamante mooy course hippique. Euh, moi je suis passionnée je suis cavalière en même temps donc course hippique nekk loo xamante ne ni maa ngi koy suivre depuis 2008 donc euh, nii nii rek dama dem hippodrome pour seetaan donc euh, jusqu'à présent mu nekk loo xam ne ça m'a séduit comme beaucoup de jeunes tamit ku ci dugg rek. Mhm. en général ça se passe comme ça. mais dañu gis ci euh, yi fu ñu daw yéen da ngeen daw ci nga xamante moo di suuf par rapport ak nga xamante moo di Europe dañu gis ci ci maanaam dafa mel ni dañuy daw ci euh, comme athlète athlète yi ci ci ci ñuy dawee loolu tamit c'est une aussi. waaw piste yi nag bari na am na ñuy daw ci gazon am na ñuy daw ci ban par exemple am na ñuy daw ci suuf donc sa dépend ci euh, course bi ak ci handicap bi muy présenté pour facile ci difficulté tout le temps y a des difficultés pour les chevaux mhm. donc y a des courses à risque mais y a des de plat tamit mhm. voilà yéen équipe bu bees ngeen mu nekk une première ngeen ngeen ngeen doog a li nga xamante moo di seen seen seen seen mandat la moo nekk seen mbébét pour seen euh, seen euh, euh, bi nga xamante ne Sénégalais yi jox jox nañ leen ko. voilà équipe bu bees lañ donc on est là pour deux ans bii moo nekk suñu première année donc instant bi on est on en est au vingt troisième journée. Mm-hmm. donc dans trois journées moo ci des pour saison bi tëj. Mm-hmm. parce que nawet bi en général fas duñ daw. Mm-hmm. dañuy noppalu am soins yi et di waajal saison prochaine bi. voilà donc équipe bu. engagé la mm-hmm. vraiment on essaie de travailler là-dessus il y a la digitalisation mm-hmm. ñu ngi jéem a def tout pour que Sénégal yi gën a xam sport bi mm-hmm. donc on est en train de créer tamit benn site web boo xamante ne nii comme France Gallo si je peux prendre bu ma ko mënee jël comme exemple boo xamante ne Sénégal yi bu bi duggee lépp lu mu soxla comme information relative à fas bi jockey yi et tout palmarès yi et dañ koy mën a fekk foofu noonu mais seen fédération tey comment voilà c'est un comité de gestion comité de gestion la euh, des courses hippiques comité national de gestion donc euh, décret moo ko fal mhm. euh, ministre des sports donc on est là pour deux ans renouvelable mhm. voilà mais saison bi wax waxawut dans deux deux jours de moo des mu jeex. voilà grand prix chef de l'état moo ci des. le 14 mhm. prochain. Mhm. Euh, suivi de deux autres courses normalement on devrait fermer. mais parce que bi satisfaire ngeen am nga ci li nga ci doon wut wala am na yoo xamante ne war ngeen ko a joxe ci nga pour ngeen waajal li nga xamante ne mhm. je pense que waruñu xaar tout le temps état. ci euh, sport bi état dañoo war a def de sorte que entreprise yi gunge ñu ci sport yi ñuy nekk parce que sponsoring mooy doxal mbir. parce que boo xoolee football wala basket wala beneen sport en général à l'étranger sponsor yi. ñooy ñëw ñooy ñëw ñoo leen di accompagner et donc état li muy def en général mooy fédérer rek euh, wala euh, gunge leen. Mhm. voilà mais sponsor yi mooy def euh, tout en général. Mhm. donc je pense que état bi bu ñu taxawee ci loolu rek grande entreprise yi mën a accompagner sportif yi je pense que tout devrait bien se passer. Baara. même si li nga xamante mooy xam ne yaakaar naa yow di nga suivi li nga xamante mooy di course hippique ah waaw bon dama koy féliciter d'abord uh-huh. euh, vraiment euh, ci engagement bi mu am uh-huh. ak comme c'est une di leen ñaanal aussi mission bi ñu leen dénk euh, ngeen matal ko donte sport dafa métti xam uh-huh. naa ne li ñu nekk bees moo tax gisaguñu problème yi ah. mais am nañ ay problème <laughs> parce man depuis presque quatre-vingt ba léegi maa ngi suivre course épique gis nga ay jàmmalaay 1 jàmmalaay 2 bu ñu daan ñëw suñu kër la ñuy dal temps yooyu ay jockey yu ñu doon wax Ibra Xayta ak ñoom Kéba ñoo fi nekkoon <laughs> Pam Ñing bi ñu tey yore yore yore yore kii bi di jël kii Pam Ñing mm-hmm. sama rakk la mm-hmm. donc course yi man am naa ay fas donc course épique dama koy seetaan bu baax mm-hmm. mais damay wax ne problème yi presque benn la mais ñoom boo gisee seeni problème fee ñu trop comme ni mu ko mujjee wax léegi dañoo am benn subvention boo xam ne mooy jóge di jëm course épique un certain pourcentage boo xam ne daal les dividendes de la LONASE course hippique lañ koy jox. loolu bu ñu ko joxoon mais cette subvention elle est pas très conséquente. waaw waaw waaw. xamante ne nii LONASE war a octroyer. waaw 2 pour cent de pour cent yooyu le président Wade te jusqu'à présent. appliqué xam xam nga yaa ngi feeñ. yaa ngi dégg ah problème yaa ngi feeñ. mais pour pour vous que tey lo ñoo ànd ah, logique boobu muy wax noonu. on doit aller vers ça. nous sommes délégataires de pouvoir. tey la politique sportive appartient à l'État. mu jël ko dénk ko ministère des sports. ministère des sports dénk ko fédération yi CNG dañ décret leen nommé dañ leen nommé dénk leen jël ci pouvoiru ministère des sports jox leen. mais ku la dénk ne la doxalal ma day toog di la seetaan loxoy kese. non ça ne doit pas se comme ça d'autant plus que mission bi ñoom lañ ko assigné nous sommes délégataires de pouvoir mission ministère de sport mission gouvernement la ñuy doxal. donc am na benn côté boo xam ne daf ñu war a doxal mais xam nga ministère nu ñuy doxee. il ne gère pas la base. dañ lay bàyyi yow ngay dugg di def sa détection wut say entraîneur di former di nangam di nangam ba athlète bi génn fël am benn niveau mu ne léegi damay gérer élite bi. Mm-hmm. il ne gère que l'élite te élite bi sax bu koy gérer ça fait défaut on a une certaine élite qui sont champions d'Afrique qui doivent aller aux Jeux olympiques te kenn gérer wu leen donc ban niveau lay gérer maintenant ni solution bi mu wax nii li mu wax nii solution la. Mhm. il faut que les entreprises nationales dans le de la responsabilité sociale totale des entreprises état bi contraindre leen. parce que nag état moo leen defal ay facilité di leen suspendre seen i TVA. Mhm. yaa ngi dégg des fois seen i impôt mu leen koy différeel yaa ngi dégg di leen accompagner pendant trois ans surtout avec euh, les nouvelles entreprises mais en retour lan la ñuy def ci population sénégalaise bi jël naa ay nit rek ngi liggéey fii non ça ne ça ne suffit pas accompagner les non ils doivent accompagner les secteurs les, certains secteurs notamment le sport on a énormément d'entreprises je ne parle même pas des entreprises nationales mais des entreprises yoo xam ne ils sont basées au Sénégal et qui appartiennent à des étrangers mmh, mmh, nekk fii di liggéey sur les ressources du Sénégal mmh. jël ay sénégalais certes baax na mais warut a yem foofu parce que seen bénéfice yi ñuy def xam nañ ko xam nañ ko ils en ont capacité capacités maintenant c'est des privés il faut qu'il y ait une discussion partant xam nga euh, entre gagnant gagnant entre le privé et le public mhm. ñi waxtaan xool ku ci nekk nan lay accompagner moroom mi ba ñu régler problème mu sport bi noonu rek lañ ko mën a régler parce que comme il l'a dit on ne tout de l'état mhm. benn bi mooy le budget du ministère des sports ñu yokk ko mhm, surtout on a la possibilité de le faire certes l'état a des priorités santé mi ngi fi environnement mi ngi fi éducation mi ngi fi justice mi ngi fi leneen na ngi au Sénégal notamment qui compte 70 pour cent de jeunes. parce que gis nga jeunes yooyu noonu on les capte les canalise on les forme on les éduque suñ ko deful woon. Mhm. ñu dugg ci pour course épique bi wala ñu dugg athlétisme wala ñu dugg basket wala football fu ñuy nekk. erreur bu mag la. merci beaucoup Khadija ma ñëwaat si ki nga xamante moo di soxna Khadija Khadija euh, benn chaque jour course la course la mais njëkkante la. mais yéen da nak ngeen def pour maanaam ñi jël pay ak ñi jël def lan mën na lan ngeen lañ leen jox bu ñu gañee seen trophée yi ak ñaata ngeen leen jox pour xaalis bu nga xamante ne euh, la facilité am ak jockey bi voilà donc en général dañuy dawal euh, cinq catégories voire voire six catégories donc euh, sixième catégorie mooy catégorie pur sang yi donc on a les poulains de 2 ans on a les 3 ans on a le groupe 1 le groupe 2 et le groupe 3. Mhm. donc en général euh, côté récompense. ñi nga xam groupe 1 groupe 1 2 mooy. en première division deuxième division ak ñi nga xamante bi groupe 3 moo moo gën a am basse moyenne. ok voilà. léegi comment ça se passe li nga xamante ni moo di les trophées ak ñi nga xamante ni moom la ñu comme argent. voilà donc en général boo dee fekkee ne journée ordinaire la. Mhm. on a 8 millions 300 d' allocation les dimanches. donc réparti entre ki nga xamante ne mooy premier bi deuxième troisième ba cinquième la ñuy fay. Mhm. voilà donc euh, c'est calculé selon selon une base pour de pourcentage donc déjà le premier il a presque la moitié de de wax nga ko maanaam huit millions par chaque week-end. Mhm. kon def ngeen li nga xamante ne moo di vingt deux vingt deux journée. vingt troisième tey mhm. euh, chaque week-end génne li nga xamante ne moo di huit millions yi. fa ngeen fa la ngay jëlee li nga sachant bien que yéen sànq wax nga fi nga xamante ne jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel. voilà donc 8 millions 300 et juste pour les journées ordinaires donc tey par exemple pour le grand prix euh, du premier ministre on a eu 17 millions d'allocations mhm. réparties pour cinq catégories. Mmh. voilà donc comme euh, ni ko monsieur Thiam waxee l'ONAS mu ngi accompagner mais je pense que mun war nañoo gën a mën a accompagner. parce que mhm. l'ONAS euh, ci li muy dox mooy. Euh, fasse. Mhm. te je pense que euh, la licence a été donnée par la France. Mhm. je pense que bala muy dimbali beneen secteur. Mhm. ñun la war a gën a dimbali. donc euh, d'où l'importance am li nga xamante ne mooy 2 pour cent yooyu noonu dina ñu permettre ñu wëyal li nga xamante ne nii mooy suñu activité donc mis à part cela dañuy compter si euh, li nga xam ne mooy quelques entreprises qui ont bien voulu nous accompagner. donc on a quelques sponsors qui nous accompagnent tous les dimanches. alors c'est bien beau de le dire xam nga ñun dañu am benn gis-gis ci fas. Hmm. moom mooy pour ñun dafa war a dem tax di xëy di liggéey di ñuy xaalis <laughs> maanaam toppatoo bi war sax quelque part duñ koo defal. Ah. alors ce serait bien aussi que euh, ñun ñuy seetaan ces cours civiques là ñu mën a xam yan fas la ak tey euh, comment ça se passe côté traitement ak ñoom et tout parce que aussi euh, c'est un sport boo xam ne sport bu noble la bu koy xayma parce aussi. même si les moyens ne suffisent pas euh, on voit nettement yéen a ngi démerdé wu tey pour que ça marche alors euh, su ma la déggee day xaw a mel ni vous y allez avec vos propres moyens la LONASE xaw na desati côté boobu noonu euh, aussi que les entreprises euh, ñu ngi fi di sponsoriser tey yenn ci parti sport yoo xam ne dañuy indi violence mm-hmm. donc c'est pas bien pour leur image ñaareel bi moom mooy dem seetaani course hippique tey pour man ak dem seetaani football c'est quasiment la même chose mm -hmm. mais aussi da ciy baax aussi que euh, ñu xam surtout par rapport aux règles et autres le choix aussi des hommes le choix des des des, des chevaux et tout tout ça ay paramètres yoo xam ne tey quelque part Sénégal xëy na daf ko xaw a rër ak tey euh, l'amour bi nga xam ne war na ko mën a am euh, ci kaw fas yeeg course épique bi tey est-ce que vous à nekkul côté boobu noonu ngeen war a gën a mën a appuyer tey pour que ces Sénégalais là puissent vous rejoindre par rapport ak loolu noonu loolu l'autre chose moom mooy euh, comité de gestion ngeen actuellement donc euh, est-ce que tey yéen a ngi dans les plans yi nga xam ne di ngeen samp tey une fédération boo xam ne tey bu ñuy génn tey les budgets au niveau du ministère ak état ñu mën leen tey réserver une part boo xamant ne tey dingeen mën a dem ak tey euh, beaucoup d'indépendance par rapport aux différentes activités yi ngeen xam ne yéen a ngi koy mener surtout que diir bi dafa gàtt muy deux ans yaa ngi koy wax. euh, par rapport ak fas yi donc ñun li ñuy def mooy li nga xam ne mooy amélioration génétique mhm. maanaam dañoo jël benn euh, wajan fii suñu réew ñu croisé ko ak pur san boo xam ne dañ ko importé euh, ci réew tubaab yow voilà donc boo xoolee fii au niveau des haras on a des pur sang de groupe 1 yoo xamante ne ni état yi ñoo leen importé mhm. indi leen ñu leen di croisé ak li nga xamante ne nii mooy suñu fas yi donc dem nañ ba benn instant dañ toll nañ fu kawe ci côté génétique mm-hmm. voilà parce que dem nañ ba xam am li nga xamante ne nii mooy pur sang né au Sénégal suivant li nga xamante ne nii mooy amélioration génétique boobu noonu voilà voilà léegi rek laaj Grégoire ñu dugg ci li nga xamante ne moo jëm si troisième discipline jëm ci wàllum bëre mu mel ni ki nga xamante ne moo di Sénégal dafa organisé woon Grégoire benn tournoi fii ci fële ca Dakar Arena waaw waaw loolu d'accord fële ci arène nationale plutôt nationale waaw mu nekkoon tey baabu la continuité par rapport au tournoi CEDEAO ak championnat d'Afrique bi nga xam ne amaloon nañu ko mais aussi lépp dugaat na tam ci cadre préparation euh, sous la houlette de général Malika mi nga xam moom waroon nekk tey suñu gan mais xëy na rëq-rëq moom moo ko dab ci yoon wi ba mujjewut ak si donc ñu teewlu tey li nga xam moom mooy bilan bi nga xam ne Omar Cissé jot nañu équipe nationale ci beach wrestling ñoom kat yéegee nañ li nga xam mooy drapeau ci Sénégal ci continent bi ba tax na ñi ngi ci dëndu Afrique ginnaaw ñaareelu édition ci championnat d'Afrique bi nga xam ne loolee ñu ngi ko organisé ci ñaar fikk fan ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weerum juin te atum 2024 fii ci Ndakaaru gaynde góor yi jigéen ñi ñoom dañoo fësal kat ci yaa xar kanam àdduna bi waaye ne kat ñoo yor doole ji ci kenn ku ci nekk itam am nga lu tolloo fukki médaille rawatina juróom benn yoo xam ne or la ñett ci xaalis ak li nga xam mooy ngànjar bu dee ci góor ñi la Mouhamed Bayo alias euh, général Malika am 90 kilos Pape Ndiaye ñu gën koo xam ci Sosokh moom 90 kilos ak Mbaye Diop nekk ca 80 kilos ñoom ñëpp dañoo yor li nga xam ne mooy médaille d'or bii Cheikh Diagne ak euh, Sini Sembène ñi gën koo xam ci siini bar ñi ñoom nag ñoo jël li nga xam ne mooy xaalis bi ngi fekkee nag mooy aadama Thior moom wàlluma xànjar la daal di décroché ñu gisee kat euh, ndam yooyu daal mi ngi toftalu ginnaaw bañ gisee ne kat ñoom seenub liggéey wala sax seenub jaloore baax na lool ci trophée en or yi nga xam ne ñu ngi ko daal di amal la ci athlètes yi nga xam ne kat ñoo daal di nekk ci góor wala ci jigéen waaye tam ci concurrent yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci fanweer dëkk ak ñett ci euh, Afrique sow jant ca Maghreb ak fi nga xam ne mooy euh, Afrique du Sud ginnaaw loolu kat suñu xeexkat yi ñoom dañoo woy ne kat ci première édition bi nga xam ne amoon na ci atum 2023 ci Tunisie foofee daal la ñu dikkaat daal di ya rango juróom-ñetti médaille rawatina ñeent yoo xam ni or la raay yooye tax na mu nekk daal ak te jéego bu nga xam ne day tax ci dynamique bi nga xam ne moo delluwaat ci ñu yeesal li nga xam ne ko mooy wàllum tàggatu ci ya discipline bu ci nekk daal ak mbébétub nekk wàllum professionnalisation fexe ba acteurs yi mën cee gis seen bopp merci beaucoup El Hadj Momar Cissé si jàngat bi nga xamante ne defal nañu ko Grégoire bu mel ni Sénégalais daal euh, may ñu ñi nga xamante ne moo di seen naataango africain yi. waaw xam nga bëre baabu day suñuy cosaan donc tey euh, bu Sénégal defaatee itam lu mel nii rawatina ci arène nationale je pense que tey dañu continuer ci seen logique. Mhm. mais je vais rester aussi sur euh, li nga xam le président doon wax sànq moom mooy accompagnement aussi dafa xaw a manqué parce que ñoom ay champion d'Afrique lañu aussi quoi qu'on puisse dire médaille d'or lañu yor. Mhm. mais ñoom tamit dañ bokk ci ñi nga xamante ne quelque part euh, mën naa ne dañ dañ leen léser parce que. yàgg nañ dem tournoi CEDEAO et autres bu ñu ñëwaatee aussi prime bi c' est comme lui François. Mhm. doon loo xam ne tey euh, boo ko yóbboo seen kër lu sax mot depense parce que bu ñu bu ñu fàtte ne li ñu leen di jox ci équipe nga jóge am na part boo xam ne day dem ci ñoom am na loo xam ne yaa ko moom dégg naa ci kenn ci ñoom euh, mu ciy wax naan sax euh, bi ñu jógee ci seen tournoi maanaam bus la dem jëli pour ñibbi telement que moyen dafa xaw a manqué surtout côté boobu noonu. Euh, investissement yi discipline yi koy jooy quoi. mu ngi noonu donc tey euh, sportu Sénégal pour man jot na ñu defal ko ay parce que aussi. Mm-hmm. Euh, bu fekkente ni kumba am ndey ak amul ndey bi ñuy wax aussi ñu ngi koy rubanaat pour man tey lu am lu am dëgg la lu fi nekk la loo xamante ne tey askanu làmb loru nañ ci athlétisme pareil basket pareil keneen ak keneen. donc tey je me dis que CNG de lutte ñu ngi def ay jéego am na ci jafe-jafe yu ñu toll am na loo xam ne ñu ngi nekk tey di ko defaraat. mais war nañu gën a saytu tey ñi nga xam ne ñooy la lutte simple parce que bëre d'or bi ñuy def ci arène nationale indiwu fi médaille d'or mhm. quoi qu'on puisse dire indiwu fi médaille d'or donc ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci mbapat bi di ko def donc jot na tey bu ñu génnatee euh, ci compétition yi ni mel nii bu dul sax le président de la république muy tey euh, le ministre des sports mu recevoir leen ñu am loo xam ne tey bu dul sax looy yëkkati nga jox leen mais honneur boobu noonu tey muy loo xam ne ñu ngi leen di won ne tey yéen ngi yóbbu drapeau Sénégal aussi mais jox nañ leen gëdd bi war par rapport ak tey li nga xam moom mooy yéen a ngi koy defar réew mi pour man foofu la affaire yi toll. merci beaucoup El Hadj Grégoire mais gannaaw bu ñu ci noppee euh, gannaaw bu xamante ne moo di Ada la dimanche passé ba am ci ndam diggante ma ki nga xamante moo di guy gi mu mel ni Grégoire def nga benn chronique ci nga xamante moo tax ñu suspendre ko. waaw parce que làmb baabu day loo xam ne tey euh, violence bu def ci bëri rawatina agression surtout que nekk na loo xamante ne tey fi mu buñ ci génnee ñiy dëkk ci côté bi dañu am jafe-jafe donc Ada Fass tey ji euh, mën nañ ne moom moo guddee làmb ji ba waral na tey euh, CNG daal def ab jàngat ci moom daal di ko suspendre muy un récidiviste parce que bu ñu koy fàtte bi mu bëree bëri Zarco aussi jóge woon na ci suspension bu ni mel donc ci loolu noon def nañu xayma fàttaliwaat tuuti ci li nga xam moom moom la jógee ñu teewlu jàngat bi te ñoom. malfaiteur la. Ada Fass Ada ñëwati na Ada defati na tegati nañu ko ay daan bu toll ci benn at CNG daanaka jëmmal na ko negeen i démb waaye yëf yi bettul kenn wala boog saful dara ndaxte yàgg nañu ko dégg ci moom mi bàyyi ko ca fas bennoo la CNG di xamle moom mooy rek dafa sal salfaañe règlement moom mi ñu duppee borom ndakaaru mel ni jamono ji borom suspension la wala boog borom tardement moo sax analan moo dal aada sax laaj la rek boo xam ne arena ku lëmb ñu ngi ko sàmp moo ne day aada fas mën na bëre am na mbooloo tamit ay soppeem fu nekk ñu ngi ko fay topp loole rek la promoteur yi di wër waaye Ada mu mel ni rek am na loo xam ne manqué na ko muy sax li gën a am solo tey def mbër loole di yar gu mat sëkk. malfaiteur la. donte mën na li muy def te am nañu yaakaar ci moom jamono ji Ada fu mu nekk rek a jur fa coow olof Ndiaye sax faral na di wax naan bu ñu la rusut nga ànd ak ku ñu rus bopp waaye Ada Fass nekkagul sax champion bu ñuy xaar ci moom mu mel ni jamono ji mu ngi gis boppam mel ni buuru làmb ji jamono ji nga xamante ni rek ay naataangoom ñoom ñu ngi dem di entraîné ji wër doole ngir rek daal di ko fësal ci biir géew gi Ada la mu jiital dafa mel ni rek xar fa xuufa la. yenn yi xanaa war na koo mën a denc ba combat ba lay ñëwaat. loolee sax jamono ji doon li nga xam ne moom moo ko tekk li mu nekkee Ada teg nañu koy daan ana daañu ko signel combat ndax daañu ko fayal ay dépense am déedéet sax la di wax. làmb dañu si dugg nii jëm. malfaiteuru làmb ji ni mu duppee boppam dafa mel ni rek jamono ji li mu def dara baaxu ca bu ñu koy fàttali ci weeru bu ñu koy fàttali ci weeru janvier ci kanamuk Zarko Ada Fass tegoon nañu koy daan yu ni mel. ndax jëf ji ana rek kañ la Ada di taxaw dakkal yi nga xam ne mu ngi koy def loolee laaj la boo xam ne moom kott moom moo ko mën a leeral. jëla ma xale bi merci mi gannaaw suspension bi ki nga xamante moo di premier vice président bu CNG yëkkati nay kàddu. waaw mooy sëñ Ndiaye parce que CNG baabu jël nañ ay dogal yu ci mooy jëm ci horaire combat ak heure bi ñu ko war a sàmm bu ko defee askan wi yëpp am jàmm combat ñu teel ko bëre mu mu wéy ju déglu ko. depuis janvier lañ ko jëloon. mais dañoo génnewaat benn lettre circulaire buy ñëw renforcer gën a leeral également arrêté boobu ñu jëloon muy arrêté numéro 5 bu janvier 2023 li mu wax bii dafa leer mu ni à partir de vingt neuvième minute si la sanction financière yi jeex maanaam parce que depuis janvier 2023 lañ ko jëloon mais dañoo génnewaat benn lettre circulaire buy ñëw renforcer gën a leeral également arrêté boobu ñu jëloon muy arrêté numéro 5 bu janvier 2023 li mu wax bii dafa leer mu ni à partir de vingt-neuvième minute si la sanction financière yi di jeex maanaam mbër bi mën nañ ko dagg di ko dagg ba vingt-neuvième minute à partir de ça si liñ si lañ koy déclarer la trentième minute forfait bu ñu ko déclarer forfait non seulement dina perte euh, reliquat ñu reverser ko promoteur bi organisé mais également mën na am daan bu toll si juróom benn weer ba jàpp ñetti at jël nañ décision bu fort muy lan bëgg nañ grand combat bi ñu koy siffler sept heures et quart mën na nekk bu tax ça permet aussi maintenant kuy ñëw di seetaan làmb di nga xam ni maa ngi dem seetaan làmb quatre bu soobee yàlla gën ngaa yàgg sept heures yi heures dinaa fa jóge ñibbi sama kër dem defi yeneen activité képp koo xam ni euh, intérêt làmb moo la tax a jóg képp koo xam ni làmb jëm kanam moo la tax a jóg defe naa décision boobu bett loo merci beaucoup kooku moo di Maysa Ndiaye di premier vice président bu euh, CNG bu lutte ñu jël ay décisions yu bees ndaxte dañoo wax na léegi li nga xamante moo di grand combat bi dootul commencé maanaam 22h comme semaine passée dimanche passé diggante ki nga xamante ne moo di Gris Bordeaux ak Ama Baldé presque ñu ngi daam ñu ngi tàmbalee bëri ñu ngi tàmbalee sëgg maanaam 22 jotee cette fois ci nag jël nañu ay mesures ne 17 h euh, baara daañu li nga xamante ne moo di grand combat bi mais décision bu xam nga tey euh, li ñuy wax euh, c'est sur les décisions que l'on reconnaît les grands hommes. Mm-hmm. bu problème amee il faut ñu jàngat ko jël solution fii nous sommes au Sénégal nous sommes dans un pays de droit. Mm-hmm. dafa am yoo xam ne euh, ak ak yelleef ci lañ war a dox. Mm. tey sa liberté fi mu fi mu fi mu fi mu yem foofu la bosu keneen commencé. Mm-hmm. bu leen neexee ngeen bëre. mën ngeen a dem ba combat bi jeex mais nag warta am jeexital yu yu yu yu métti wala yu bon. ci ci yeneen askan wi. Mhm. parce que ñoom ni ñuy bëree noonu la ñeneen di defee leneen. Mhm. te ñun ñëpp comme ni ma ko waxee bi may commencé ay sénégalais lañ. Mhm. donc ces décisions là il faut les appliquer. moi je suis pour que ces décisions là qu'on les applique parce que nag booy diriger mbooloo surtout mbooloo mu toll noonu. parce que xam nga le nombre de ah te boo xoolee bon moyenne moyenne moyenne d'âge bi ay xale lañ. donc on revient toujours sur les 70 pour cent. ba pare boo xoolee presque ay 5 pour cent ñoo ci ñoo ci la seen niveau jàng tollu fenn fi. Mhm. donc ñu mel noonu faaw ngay wax ak ñoom. parce que débauche d'énergie bii nekk ñoom ils s'entraînent à longueur de journée. Mhm. donc il faut nga canaliser ko. su ko wax mënut canaliser nag texte koy canaliser. Mhm. moo tax décision yooyu noonu il faut que les gens soient rigoureux. parce que Sénégal lenn moo ñu yàq dañoo gis naa aussi ci euh, face à face yi. Euh, li ñu koy arrêté à minuit. loolu c' très bien c' est des décisions yoo xam ne il faut qu'on nit ñi. Mhm. te sénégalais loo ko bu ci xasee tege ci raay rek après day adapté wu day dem. effectivement bañuñu ko bañuñu ko mais sénégalais dafa dafa dafa dafa day tàmm. Mhm. tàmm benn affaire di ko def di ko def ba boo ko fi bëggee jëlee. Mhm. mu ne mu bëgg koo def droit. alors que war sa demee noonu. il faut que les secteurs là soient organisés nous sommes dans un pays de droit. Khadija si si li nga xamante mooy décision bi CNG ñu ñu commencé li nga xamante moo di lamb bi à mu jeex à donc je pense que bu événement amee bu sécurité publique taxawee rek wala ñu war ko remettre en question rek da ciy baax des ñu jël yenn décision yi. Mm-hmm. parce que lamb booy xool des fois bu jeexee dañ la naan euh, bul jaar bërëb sàngam lamb bi dafa tas oto yi. Euh, agression yi voilà yi. Mm-hmm. donc je pense que c'est une très bonne décision. Greg. bon ñaar laa ci wax moom mooy damay féliciter d'abord le CNG parce que c'est de leur part. Mm-hmm. Euh, man mii di dem ci làmb yi di leen couvrir xam naa bu baax a baax li nekk ci biir enceinte bi mais li ma ci gën a neex moom mooy bu làmb ji tase les policiers bu fi public bi desee dañ leen di génne géew gi mhm. ñoom ñëpp parce que aussi euh, jaaykatu dox ba biti ngay jaay sandwich foofu noonu yëpp ñoom ñëpp dañ ñëw daje ci làmb ji muy industrie boo xam ne dañ ci am mais bu ñu demee tey ba leneen bëggu cee laxasu ndax lan tardeel boo xam ne tey ñu ngi ko ciy tardeel pour man jot na ñoom ñu def lii. Hmm. donc euh, euh, Bira Sène ak Maïssa ak seen équipe yëpp je pense que tey jii ci logique bi ñu nekk nii bu ñu leen bàyyi ci loolu noonu. Hmm. Euh, ñoom naa ne làmb dinañ ko jubbanti alors leneen li ci nekk moom mooy Sénégal problème mu suivi la ñu am. donc ci loolu rek lañ leen di woo. Hmm. ñu appliquer bu baax a baax li moom moo nekk seen mesure te aussi bu ñu ragal a dagg. ñu ci bëri nag ñu ngi interroger fan la xaalis bi di dem ak autre mais foo ñoo xam ne aussi promoteur bi tëgg làmbam mhm. yenn dagg yi ñuy dagg yëpp dañ ko koy reverser mhm. il faut que ce soit assez clair parce que aussi investir sa làmb mbër ñëw tardel ko mhm. euh, pour man buñ ko ci bàyyee tey euh, doon na loo xam ne nii euh, ñoom kuñ kuñ ci cravaché wul du dañ ñaareel bi ma ciy wax moom mooy le problème de l'autre la face donc bukki nee na xamul dëgg mais li ñëpp wax mooy dëgg te maanaam récidiviste la par rapport ak question boobu noonu moom mooy Euh, mënuñ laa suspendre par rapport ak li ngay def nga dellu siwaat boo ko def donc loolu day niru yëfumaa tey quelque part mm, mm, mm. Euh, l'autre chose moom mooy euh, gis nga sëriñ si dañ lay digal rek mais sa xaalis yaa koy ci jox leen ko mais bu taree ba tar tey ci un bi muy def amul benn sëriñam bu ko xam ne dina ko signer contrat pour mu dem amul amul amul donc boo nekkee xale am mbooloo te li ngay def da ngay bàyyee xel ne am na lu bootu sa ginnaaw te am na cër bu ñu la jox sportif bu amul discipline rek doo sportif mm-hmm. donc lu jar a bàyyi xel la donc ñu koy woo ci tey encadrement boo xam ne war nañu ko parce que aussi Fass Benno nekkul euh, écurie boo xam ne bu ndaw la ci biir làmb ji mhm. donc am ay kilifa yu fa ne ko woo xamal ko ne moom dafa bokk ci ndaw yi nga xam ne moo yor làmb ëllëg donc euh, ñu recadré ko par rapport ak li muy def te aussi mu xam ne làmb du gàllaaj kese. mais am na ñoo xamante ne actuellement ñu ngi def médiation pour CNG baal ko est jàpp ne CNG dafa war a jël li nga xamante ne moo di sanction bi mu ne ko exemple pour keneen mu bañ ko baal mu purger li nga xamante ne moo di mooy une année defoon nañ médiation. ñu baal ko mu defaat donc kooku noonu tey pour dem défendraat ko. day xaw a marqué le coup ko ko bàyyi mu purger les les les les une année. bu ne tey du dellu ci décision am parce que am na lu tax mu koy def mais pour man aussi un an bëri na lool ci koo xam ne baa baabu euh, dafa yaakaar ci làmb pour mën ay activité am aussi daa am ñu yaakaar ci moom moom mu yaakaar ci kaw làmb ji. donc mënoon nañu gën a suuf mais pour man un boo ko boo boo ko suspendre mbër rek am na lu bëri loo yàq ci moom. Mhm. te pour man mbër dafa war di compétir Ada Fass ci jamono jooju la tool moom si boppam bu xoolaati taxaw ma doon moom damay dem ci CNG jégalu leen par rapport ak li mu def te aussi mu wàññi butéel yi butéel daanul kenn lay daan mbër ba nga ca kër ga. du dem ci làmb du dem fenn mais boo dee xale bëgg a jiital gàllaaj certes ci biir làmb la bokk mais du doon loo xamante ne tey euh, war na mën a tax ñuy dagg sa cachet. di dagg mais boo jégul tamit boo jégul da ngay da ngay da ngay da euh, ngay da ngay da ngay da nga war a neex neex ñu lay jégal imagine toi jour lamb ji nga xamante mooy président CNG wàcc na. nga wax yow nga bañ vice président wàcc wax yow nga bañ. ancien lutteur wax yow wàcc nga bañ le promoteur ñu wax wàcc nga bañ. ne yow loo gis rek il faut que ma continue li nga xamante moo di samay bien loolu tamit war nañu ko war a bàyyi mu toujours léegi nga xamante ne moo di une année yu baal. oui bien sûr bon man pour man comme le dit les décisions sont faites pour sont faites pour être appliquées. Ah, euh, am na structure bu fi nekk. di réglementer làmb ji jël na décision nañ ko appliqué. point wax naa la Sénégal maslaa moo ko yàq. kase maslaa moo ko yàq. feeg ñi ngi maslaa du dox. du dox c'est clair. Baara vraiment di la jaajëf bu baax a baax te ñu ngi ñëw aussi li nga xamante ne moo di euh, encore une fois euh, magazine bi di set c'est euh, à débattre maa c'est à débattre sport 7. waaw merci beaucoup Babou vraiment di remercier Grégoire aussi di remercier aussi Khadija. donc di leen jaajëfal ci invitation bi. Mhm. Euh, di leen wax na rek euh, ba léegi ñu ngi garder espoir. Mhm. parce que slogan bi ñuy wax jub jubal jubanti. Mhm. dañ ko gëm. te pour nga jubbanti. xaw nga xam fi problème bi am. bien donc ñun suñu teewaay fii mooy que ñu ñuy dégg xam ne fii moo am problème. te joxewuñ problème bi yam ci di ko kaas di ko teg dañuy joxe dañuy wax problème bi joxe solution solution yi lii la nañ saafara lii suñ ko defee rek. Euh, sport yi dana dox parce que tey jàngoro bi nekk fii nii ci athlétisme moo nekk pratiquement ci quatre-vingt-dix pour cent des mm, mm. problème infrastructure kii wax na ko sànq euh, Khadija wax na ko sànq am nañ ko ñun. Mm-hmm. am nañ problème infrastructure. yaa ngi dégg problème mu accompagnement. am ko ñoom ñun am nañ ko noonu la ko yeneen fédération yépp amee Sénégal benn sport nga fiy génnee bu mën a demal boppam muy football. Mm-hmm. parce que sax mënuñoo demal seen bopp. ay problème mag la ñuy am. bien sûr donc li commencé ci athlétisme basket ak yeneen sport yu si topp yépp. dañoo presque ce sont les mêmes problèmes. Mhm. léegi nag ñooñu da ngay xool capital de jeune bi fa nekk nga xam ne lii ce n'est pas une mince affaire donc dans le cadre des programmes dans le cadre des politiques sportives ñu jël ko en compte teg loo xam ne nit ñi danañ ci gis seen bopp. parce que Sénégal wax naa ko yaa a beaucoup de secteurs yoo xam ne c'est des priorité mhm. sport ci la bokk ci la bokk donc je pense que euh, autorités yi euh, dinañu dégg. te it dinañ ko saafara parce que ba léegi wax naa la ko. Mhm. ñoo ngi am espoir. su ma ne ñun c'est parti jeunesse bi ma yor bi ñu yor du moins ak euh, sport bi ñuy dund nekk ci. ba léegi ñoo ngi am espoir que ne. Mhm. dina am ay changements notoires. Mhm. wax naa ko sànq code de bi ñu ngi ci xëy na peut-être bu sottee. ak budget bi peut-être bu ñu ko yokkee. ak euh, facilité. tey l' accompagnement au niveau des privés du secteur privé. Mhm. ñu accompagner les différents sports parce que 55 fédérations état mënu ko yor. ah oui c' est clair. il faut privé yi dugal ci seen loxo. Mhm, voilà donc euh, facilitation yooyu nag la ñuy xaar. Mhm. ci ministère des sports ci gouvernement actuel bi. xaar assemblée aussi ñu yokk budget sport bi. sport bi parce que xale yi ci nekk la ñoo bari. voilà donc il faut pour que vraiment euh, mission yi ñuy am. di gën a mën a représenter Sénégal en Afrique mais aussi sur le plan international. merci beaucoup euh, Bara Thiam nekk premier vice-président bu fédération sénégalaise euh, d'athlétisme yaakaar na ñi nga xamante ne ñoo di autorités yi ñu ngi ñuy seetaan xëy na dégg nañ ñi nga xamante ne moom nga fi wax boobu ba tey. di yaakaar ne euh, dinañ leen recevoir wax ak yéen laata ngeen dem fi nga xamante moo di Paris pour jeux yi nga xamante moo foo nar a am a xarja ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay vraiment jaajëfal li nga uy si li nga xamante moo di suñu magazine bi di sport sur 7 di la wax bàyyi rek nga def li nga xamante moo di le dernier mot merci beaucoup Babacar maa la gën a kontaan ci invitation bi donc juste pour rappeler que sport dafa métti mm. te sport ki koy def pour un laps de temps mm-hmm. maanaam sport jeune moo koy def mm. am na fooy toll dootoo ko mën a defati te je pense que yeewu fajar dem di entraîner pendant que ñëpp di nelaw dafa métti de même que ci fas yi da ngay gis koo xamante ne saison bi saison hivernage bi yëpp day nawetoo ak fasam rien que pour que le cheval soit performant mhm. kooku tamit loo ko jox jar na ko mhm. donc juste rek pour rappeler euh, woowaat autorités yi pour ñu jàppale ci li nga xamante ne nii mooy sponsoring bi mhm. comme li mu ko waxee bu état waxtaanee je pense ak entreprise yi ak lépp li nga xam ne moom la ñuy def ci pense que war naa mën a yomb voilà merci beaucoup Sokhna Khadija di ko jaajëfal bu a voilà c'est ça fait un plaisir parce que c'est la première fois ñuy waxtaane tey sport équestre sur le plateau donc euh, je suis vraiment content tey voilà donc <laughs> euh, course hippique muy loo xam ne euh, jàng naa ci lu bees mhm. aussi di di encourager président di ko wax bonne chance également ci joutes yi nga xam ne ci la ñu jëm mhm. di gën a attirer attention autorités yi tamit parce que jub jubal jubanti baax na mais nañ jubanti suñu bopp ba pare balaa ñoo jubanti ñeneen donc je pense que foofu la toll. Mm-hmm. Euh, ay athlètes tey bu ñu demee war a une nation c'est bien beau tey ñu defal leen tey euh, li nga xam moom euh, jox leen accompagnement bi war. parce que aussi bu ñu fa demee xàmmeetuñ tey kii fii la dëkk Ndiaye la sant wala Diop mais Sénégal la ñuy wax donc c'est très intéressant tey ñu jox leen les moyens qu'il faut pour que ñu représenter dignement le Sénégal joxe rendez incha allah jaajëfal di ko jaajëfal bu baax a baax moom alaaji Grégoire di jaajëfal li nga xamante ñoo di suñu ay gan di Baara Thiam ak ki nga xamante moo di Khadija euh, Thiombane di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yàlla toogal seen kër di seetaan magazine bii di sport sur 7 di jaajëfal Bamba mi nekkoon si réalisation bi ak Pape mi nekkoon ci son bi ak Papis Mbaye di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous incha comme ni ko Grégoire waxee